asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam yéene safo seen bii di Télé Futur 70 te ñu ñëwaat tey jii ci nga xam ni moo di Sitor Ndour Sitor Ndour mi la kenn doon ko présenté ci langum politique bi la di senegal ndax kat jëwriñ la ci te ci am capacité rek nekk ki nga xam ni ku taxaw la ci biir politique te loolee sax fara fi nga xam ni moo di APR waaye lee moom mi la di Sitor Ndour tamit jamono gilee gis nañu bu baax a baax ak dara dab dab ko mu nekk mbir bi nga xam ni dañ koy ñaan yàlla teggil ko ko ci jàmm ak salaam ndax moom la di Sitor Ndour jamono gi ñu xam ni jamono jilee jox ak yéen mu ngi ci li nga xam ni moo di lenn ci suñu ndungu suñu yilee di kaso yi li waral li ñu mel nag du lenn lu dul ak jànkam wala ak mbindaanam comme ni nga xamee ci mim réew du Sénégal bu gi doon liggéeyee la kat moom Sitor daal di ne mbindaan boobu dafa nee Sitor Dakar sàkku te loolee sax mën nañ ne bañu demee lenn ci yoon daal ñu ba ñu xoolee xam ni kilo lee mindaan bi la mu wax dëgg bu wér la ndax kat gis nañu ci lenn ci li nga xam ni kat moo di sitoor mi am na ci li nga xam ne ak lu takk ci la soxna si la ca loolee sax mën nañ ne ci lañ ko tegee loxo jamono gi ñuy wax ak yéen ñi mu ngi ci loxo yoon waaye nag moom mii sitoor jamono gii di am na ñu xam nañu kañ lañ ko war a atte mi la ginnaaw bi nga xam ni lii di chambre criminelle jëlee décision ngir atte kii de sitoor nduur moom mi la di sitoor nag jam moom mi la di si toor mën nañ ne ñaanoon na li nga xam ni moo di bàyyi ndig ndiku ngir kat mu mën a dellu ci njabootam dellu ci këram waaye nag dañ kaa gàntaloon boobu le mbir tey jëlee gis nañu nag bi la chambre criminelle fixé na bi nga xam ni war a naka atte moom mi lee di leader politique bi lee di Sitor Ndour mu yemoo li nga xam ni moo di premier mars bii ñu jëm waaye nag ginnaaw nañu xool fan la wane di mujj ak gëtëm ndax kat mile Sitor dañ koy may bàyyi ndigandiku bile wala kat naka la mujjee lan lay mujjee ci bile mbir wooy leen di abonné fi nga xam ne moo di Télé Futur 70 ndax li fi information ko xibaar ñu leen koy indil asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu